يمنع تتكبر بدان

ànd ak moom màggal xasaay bi barke borom Tuuba jóg leen màggal xasaay bi wala mi maa ngi ñaan ñu yokk taxaw màggal xasaay bi yàlla na ko màggal di wér ci barke borom Tuuba jóg leen طيب الغرباء أنا صفي يومك دفني نمك سيدنا محمد ابتداء ابتداء يا غير خير الغرب شيخ أحمد بامبا كنت جاهل لا Cheikh Ahmadou Bamba kawoon te gaaril انتهاء سني نزل لم تروى أحمد مكة كون تجاري دائما الخبير الكبير

دنيا يتبع صلى عليه رب القلب رب ما يدي على على أفضل الناس خير الورى سيد الورى صلى الله عليه وسلم صلى عليه رب الغرلة ما يدي إمام المرسلين يا محمد سالي معك باب المرأة Saliou Sall Mbacké ay Saliou Sall Mbacké murid jangol dal ay Sall fekki alhamdulillah sant ya Allah ناي الله قسمت يا الله يا الله عايز علمنا الحمد لله كنت شيخ سالم نخوتك ومسند بايز الحمد لله يا ما قسمت يا الله يا الله عايز علمنا الحمد لله مكتب في الجمعة أمكي والله

الله ويزه مدام الله الحمد لله يا الله صدق الله ما أنا الحمد لله يا ما يزيد يحساره ما يزيد متدار tey waral dënd dund maa ngi sànn te mën a

عبد الله ديزان دباي جنة ما واجن بلال مارم خيسك ساجو يعني كسب على جفن نبي الله الواحد عبد الله ورندي خير خير بلال مارم خيسك ساجو يعني بطوبة بطوبة كمباي الحمد لله سبحان عيسى إن سكون أن الله سكون بابا لا إله إلا الله يا سكون لا سكون لا سكون Budu bamba ni na ya Bamba jara ya Bamba jara ya Bamba jara ya Sukura pa Allah wa ta'ala Allah wa ta'ala Seex Ibra jaaraw la dañal o xalbe dañe xalbe awda awda awda bu yi bay fal defal ni dinam ni bu xalbi Seex Ibra jaaraw la Bamba la ilaha illallah dañal o xalbe awda awda awda awda ida dugg ca kër ya tëdd ca lal ya may daam mama dama ca kër ya tëdd ca lal ya màggal si tuuba am xéwal teg ba dugg ca dugg ca kër ya tëdd ca lal ya may daam mama mbooloo mi àjjana yi Serigne Bamba ku ci bëgg a tàmba da ngay jóg taxaw ca kaw ñu màggal Serigne Bamba te tout ba am firndal war na dugg te gën a te du talal ya may daam Bamba Serigne Baye jàng dangi nangare mana gedek gemai damca Jadi sani umbak eba, kebaisal, kebaisal, tetap ulambe umbak kebayo. Insan, insan, tetap ulambe umbak jamono yaanu moom te taxulaa ba ay saale saale sa baaya demoon géej mu daan sa baaya demoon géej ku sopp si saale baaya ma demoon géej mu daan sa baaya ma demoon géej

Seydou Fall Amadou Fall a ñakana Ndiaye Fall Amadou Fall sopp Seydou Fall Amadou Fall a ñakana Ndiaye Fall sopp Cheikh Rafal la damay maam Serigne Ndiaye coow li coow li sopp Cheikh Rafal damay maam Serigne Ndiaye coow li coow li Abdou Fall Abdou Fall Cheikh Ibra Walé Abdou Fall Abdou Fall Cheikh Ibra Walé Abdou Fall Abdou Fall Cheikh Ibra Walé Abdou Fall Abdou Fall Cheikh Ibra Walé Ru maam Serigne Ndiaye sopp Serigne Fallou baayu mbéy borom borom di di jaajëf sopp Serigne Fallou baayu mbéy borom borom di di jaajëf Fallu Serigne Fallu baayu benn borom bi ni jaajëfate Serigne Fallu baayu benn borom bi ni jaajëfate Serigne Fallu baayu benn borom bi ni jaajëfate Serigne Fallu baayu benn borom bi ni jaajëfate Serigne Jili yaa baax jàmbaar ga ñëpp dina Serigne Jili yaaba yaa ngi fi dëgëral sopp Sëriñ Jili Mbàkke yaaba yaa ngi fi dëgëral Cheikh Ibra Fall waa ma Cheikh Ibra Fall dama sutura taxula Fall dama sutura taxula Cheikh Ibra Fall dama kulal ya iblis isna dayto biya onne iblis isna dayto biya wale iblis isna ناديت وابيا يا لا يا سميني لا وإن دجل هدي إذا إذنا ناديت وابيا يا سميني لا بابا دمنا كنا بابا جسنا لنا أتبدل نلنا هيا سميننا الله إمددنا هديت إذنا وديت بنا wala wala borom bi jël ma naaw mu teewoon na wax Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ku ko wax ren yàlla na nga ko wax déwén yàlla na baali xayrina wa qamdu bi بأمر بعدي أسودك يا سمين لا سقزي بما دغلني بآل سن بما جلي نتنر نفعل خير بأمر بعدي أسودك نفعل خير لا خوف في الدرب لقد خيرنا إنك لأزل جر ومكر شكروا لأزل جر ومكر تجد على أمني رحمن بن سبيل لأنني قديم في المدينة على من الرحمن الله خبر تقال قدمي لقي مصطفى مصطفى ما مدينة على من الرحمن بأنني قديم في المدينة على من الرحمن في سبيل القديم تنكنا كي ترى عن الله لو هداكنا كل جاء ابن إلى المناكب ترى عن الله لو هداكنا كل جاء ابن إلى المناكب ni la bu kii gërëm ma la ba doomu ba bi di wa an na kan basara yàlla asabaha la wa fi karam karamana ana ma baara wa an na kan basara yàlla daani ya warai wa in dadawani بما أنا أني تذكرني يا لدار يلا يا سارة للمنى أدادي بروني فقاد لا أخاب عن كل المنى يلا يا سارة للمنى لدالي بروني فقاد لا أخاب عن كل المنى يلا لقاد لبى بوزورا انت عزيا والازواجا أهلا بدل أنا نيوك بامبا يكون تولي وشو أقول لا تسير لا إذا حق الله

جل ساق يقن يقن بدائه ما ينبع ساق هي وأمر لقل الله وشب مساق وشب سيرين بما سلق تكو ساق بدائه ما ينبع ساق هي وأمر لكل نار Serigne Cheikh Mbacké Mbaye ya baax sax bu bay da ebe manamba sta afan ya wa anda la janna وفق لخيرنا ومزاق الأبياء وأنجب يلا لله قوما وظل عندك هدانا النيئي عما يجعل بالبال يلا لله قدما عندك الوال وسلم عما يجعل بالبال يلا كتاب ولي قبله وحدا القبور لقد آياتي إيا للمطاعم يا لكتابتي قبله لدى القبور لقد آياتي إيا فبصير يدبا على مني وإن تداخل حماية هو كمان كافر على مني عليم إن تزافر يلا لا نعنوني إن لا تكون مغنى وإن تقدر عند وائك يلا لا نعنوني إن لا تكون مغنى يلا يا تارة دي لجميع إن المغنى حسن بن حجان بن المسلم قوما يلا عباد من لك فإن الماضي عدد ولدك يمكن يدا وتعتمد yàlla ma daal yàlla laara inu ma daal ni amma na kama na zatta yàlla ma daal yàlla amma la inu na amma na kama na zatta fadama atu sa'atati dal ilahina takkuni rahman jaanu docteur Rahman bañ nga nee baay benn jaanu docteur Rahman bañ nga nee man ñi man di Rahman si seen tarawa rahman tan nga ñii di rahman mag ñi man di rahman yaa di seen karaama xamu ko yëpp mag ñi man di rahman yaa di seen karaama mag ñi man di rahman ku magal sa tuuba am xéewal mag ñi man di rahman yaa di seen karaama mag ñi man di rahman ku magal sa tuuba am xéewal mag ñi man di rahman yaa di seen karaama mag ñi man di rahman waxta ko njukkal baayu meen mag ñi man di rahman yaa di seen karaama من الرحمن وقل مسيد فن توبا وقل مسيد فن توبا هاي من سيد فن توبا كابا غانغا توبا هاي من سيد فن توبا كابا غانغا توبا xamu ko yëpp def sa mag di ab seex bay sa sas xamu ko yëpp def sa di ab seex Cheikh Modou Moustapha def sa di ab seex Cheikh Modou Moustapha def sa mag di ab seex bay sa sas bay sa sas Modou Moustapha Ba bay sa samba bam jeex ban dudu xaw ko yëg bay sa samba bam jeex ban dudu xawaana fadi lo yaanu taggalab da solkilo añab la yaanu taggalab da solkilo añab la yaanu taggalab da solkilo añab la réew mi ñëpp ngay taa ci biir waare yaanu taggalab galeeg daa sopp sëriñ Fallu te bandi bi ñëpp a ngay taax aw bi ñëpp a ngay taax def ci biir waroora ku màggal sa Tuuba am xéewal réew mi ñëpp a ngay taax def ci biir waroora mag ñi ñëpp a ngay taax sopp sëriñ Fallu te bandi ak ñi mag la ngay taax def ci biir waroora ku jaayu ren fekk déwén ku jaayu ren fekk aw ka yéen a ji ñëpp nga taa def ci biir wala wala. ñëpp wax la ne ii ne woon jumaa ji lii du sant. ñu ne woon jumaa ji lii du sant. ñu ne woon jumaa Tuuba lii du sant waaje. man ko maara waaje. sa kaay sa kaay. lii du sant waaje. man ko maara waaje. nan ko xaare waaji nan ko xaare waaji maaji nan ko xaare waaji am nañ tuur ba teg ci naa nan ko xaare waaji am nañ tuur ba teg ci naa nan ko xaare waaji Sidi Mokhtar def na juróom ñaar nan ko xaare waaji Seex Sidi Moxtaar def na juróom ñaar borom tawfiix def na juróom ñaar am nan masaali kuy dinaane am nan masaali kuy dinaane nan مسالك الجنان أنت خارق من مسالك الجنان جمعي مسالك الجنان أنت خارق من مسالك الجنان جمعي مسالك الجنان أنت خارق من مسالك الجنان شيخ منتقى أنت خارق من مسالك الجنان Cheikh Mountakha mooy mazaami an ko xaare xaasim an ko xaare Cheikh Mountakha mooy mazaami an ko xaare xaasim an ko xaare Cheikh Mountakha mooy mazaami an ko xaare xaasim an ko xaare Mountakha mooy mazaami an ko xaare xaasim babu ko yimi di ay dëkkandoo am jaar buy di ay dëkkandoo ku sopp buy di ay dëkkandoo ku sopp maam jaar buy di ay dëkkandoo soxna Anta Njaay mbokk mu tala Anta man maa buy di ay dëkkandoo ku sopp soxna jaar de kon nii sama xol jimba jimba niji ay dëkkandoo am jaara niji ay dëkkandoo ku sopp am jaara niji ay dëkkandoo soxna Anta Njaay mbokk la Anta mama niji ay dëkkandoo ku sopp soxna jaara defal nii sa loxo jublu borom Tuuba jub leen magal borom gaawaan tey rek imam mbay jaara Basiru dansarin la jàmbaar Cheikh Muntaxa Basiru dansarin la jàmbaar Cheikh Muntaxa Basiru dansarin la jàmbaar Cheikh Mountakha Bassirou Anta irla jambaati haw kay toggu ndiggu na jeewal haw kay toggu ndiggu na jeewal haw kay toggu ndiggu na jeewal dollo ne kay jatal ya jabatar mosan wa tadam rooti hanke yiddongo em mo ɗaro hanke yiddongo em mo ɗaro ko soppu mam jara dongo em mo ɗaro mo jara dongo em mo ɗaro dundu fan sini tumu baba tafal banoyna ko soppu sama jara defal ni dana ko kirba tuba dongo yam mu daaroote aw kay dongo yam mu daaroote sunu fal sëriñ Tuuba defal ba mu yaa ko daaroote ku sopp Cheikh Ibra defal lii dana ko jim borom Tuuba Suru fal borom Tuuba defal ba muy la suru fal sëriñ Tuuba Cheikh am di xam di fala ba suru fal borom Tuuba defal ba muy la ma gis li Moussa Fall ba xullu fal borom Touba fal borom ba xullu fal borom Touba borom Daaru Mbay ba xullu fal borom Touba lambu fal borom Daaru Mbay ra yow yaa ka ba xullu fal borom Touba fal borom ba lambu fal borom Touba lambu fal yaa ka ba xullu fal borom Touba fal borom ba ka baax maam yaa ka baax Fuur Fall borom Tuuba Daaru Bayre ka baax Daaru Bayre ka baax Fuur Fall borom Tuuba maam moom Daaru Bayre am nga yëpp moo taxit dangam yaa ngay yëpp te yëpp naan man te yëpp naan am te yëpp naan am te yëpp naan fal te yëpp naan fal te yëpp naan fal te yëpp naan fal te yëpp naan loxo fal te yëpp naan fal te yëpp naan fal te yëpp naan fal te yëpp naan loxo fal te yëpp naan fal te yëpp naan ungu na nekk ba see daa di damp bay leera bamba mooy nekk see wax li na Bamba mooy nekk ba seer daa di daan bay leer Bamba mooy nekk ba seer aw nga yëpp Bamba mooy nekk ba seer daa di daan pour bay leer Bamba mooy nekk ba daa di daan bay leer xambaat ci njaay nga ci nekk lu li leen paas ku ci bëgg ja dem ñu dem kër Seexal Basiiru fa dem murit gaal gaal baayu sëñ Muntaxa nan fa dem murit gaal gaal fa dem murit gaal gaa ngi te Serigne bàyyi sëñ Muntaxa nan fa dem murit gaal gaal